ci taxawaat fii tey ci ay aéroport international Blaise Diagne ngir lancer travaux bi desoon ci TER bi diggante Ndakaaru ak aéroport international Blaise Diagne saxaar si dana yegg si fii ci ay AIBD fii ci commune bu Diass te nee leen bu ci yàlla àndee train express régional la tudd maanaam train la bu gaaw buy daw cent soixante kilomètres à l'heure kon kooku warul yem rek ci région de Dakar donc jéggi région de Dakar dugg région de Thiès déjà fii ci région de Thiès la mais bu fi jógee plus tard dana war a mën a dem ba Thiès benn dëkk ñaari gaar mais bu jógee Thiès également ñëwaat dem bi Mbour pour que suñu mbokk Mbour sali ak li ko wër ñoom itam su yàggee tuuti rek daañu gis TER bi seen dëkk loolu mooy sama yéene ci yéen loolu mooy li nga xam ni moom la suñu gouvernement di liggéey guddeeg bëccëg loolu nag maa ngi ciy sant bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoom laa dënk liggéey bi muy APIX muy seen SENTER muy également ministère des infrastructures et du désenclavement monsieur le ministre Mansour Faye n'est pas là mais le secteur d'État euh, Camara est là pour le représenter ainsi que le ministre des finances et tout le gouvernement kon nag euh, mbokk yi lii mooy li nga xam ne bu ko yàlla mottalee Sénégal dina marqué point boo xam ne ci wàllu modernité ci wàllu infrastructure de transport public bu ñu ko boolee ak BRT dinañ nekk le premier pays en Afrique boo xam ne le transport public de masse transport multimodal aura été une réalité entre le bus le train les taxis et les cars Ndiaga Ndiaye tout ça sera interconnecté la banlieue sera naturellement servie loolu mooy ambition bi kon nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla liggéey bi yegg ak jàmm wasalaam